Touba kay macha allah boo nekkee même boo nekkul murit sax. gis ñu fi teew rawatina ma nekk taaliba Serigne Touba Xaadimu Rasuul nekk murit. Serigne Bassirou Baar di suma Serigne di suma kilifa. di yàlla yàlla yokki leeram bokkoo ak sëñ Baara. yàgg fee teew xëy nag yàlla muy doog a doog a ànd ci délégation yu mel nii ñun ma ci doog a gis mais sama tànk ci Touba moom daanaka kenn ko laaj. ko kon ni ko mbokk jullit yëpp di ko waajalee rawatina taalibe Serigne Touba yi ni ñu koy waajal rek laa ko waajalee ndax danañ koy taalibe moom. ngay jëfe bàyyi cere ci li nga xamante ne li sëriñ bi bëgg julli jaamu yàlla respecté waxtu yi doon taalibe jëfee ndigal bàyyi tere nekk nit ku baax nit ku bëgg sëriñ Tuuba nit ku gëm li ñuy def ci yedd doomu aadama yi rawatina di leen xiir ci jaamu yàlla rawatina di leen wax ni lépp lu waay nekk rek na doon lu jub dëggal leeral loolu dara dàq ko ci àdduna bu koy wax dama ci gis sama bopp sama xol da ci sedd waaw vraiment ay ndaw lañu di liggéey ba yàlla def fi ñuy fii ñu àgg ñu àgg waaye nag dañoo respecté suñuy kilifa ndax nit bu fekkee dafa am kilifa lu bëri du ci dégg nit bu fekkee kilifa lu bëri doo ko ci dégg kon moo tax am kilifa loolu solo la bu fekkee ne yow balaa ngaa def dara tam ci waxtaan ak say kilifa lépp looy def si àdduna doo ci jub nag loolu képp kuy ndaw maa ngi koy dénk loolu respecté say kilifa respecté ñi nga àndal fonk ñi nga àndal loolu rek moo ci solo waaw ñun ay taalibe lañu. te gisuñu incha allah ndëgam neex na yàlla ñu fekkee ko. dañ koy def safar bi ñu ngi koy def mercredi bu soobee yàlla. bu soobee yàlla ko na fekkoon sunu papa génn àdduna. ñu nekkoon ci yooyu. rawatina màggal gaa ngi ñëw donc ñu bii ren dañ koy benn fan bu soobee yàlla ndax màggal gi jege mais mercredi bu soobee yàlla incha allah invité nañ mbokku taalibe bokku mbokku jullit yi mbokku jaamu yàlla yi dañ fay jàng xasise ñaan jàmm yàgg ñaanal si ñu taxaw mu yàgg loolu tamit mercredi daal bu soobee yàlla incha allah dinañ ko def bu